dali nag jàmm ñoo ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien xëy si jafe-jafe yi nga xamante ni malade manto yu amee nañ ko maanaam ñi nga xam ne ànduñu ak seen xel rawatina jamono yu woppi coronavirus yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu lu soxal coronavirus état bu Sénégal fu ci bare bari jël ni fi ay matukaay waaye nag li nga xam ne moom la ñu nemee ko ñi nga xam ne ànduñu ak seen xel te nekk ci mbedd mi kenn faalewu leen kenn fulaalu leen ay jafe yu métte métti moom la ñuy dund am na si ñoo xam ne sax maanaam ci mbedd mi la ñuy faatu am na si ay ay jigéen ñoo xam ne ànduñu ak seen xel dañu leen di saax-saaxee di leen di caxte-caxte maanaam di leen di violer di yëgg ci seen kaw te état bu Sénégal moo leen war a jël en charge waaye nag jamono ji kenn faale wu leen Ansoumana Dione mi nga xam ne mooy njiitul kuréel gi ëmb maanaam ñiy saytu ñu ak seen xel moom nag daat nay wax ne hôpital bu nekk dañu faa war a def ab bërëb boo xam ne dafay faj ñi nga xam ne ñooy malade mentaux yi waaye nag li mu nemmeeku ci Sénégal mooy kilifay réew yi amul benn jéego boo xamante ni def nañ ko si ñi nga xam ne ànduñu ak seen xel waa ministère de la santé ñoom nag nee nañ nañu maanaam def nañu ay effort yu rëy waaye lu bare bari daan nay des am na lu toll ci fanweer ak ñeent ci ay centre de traitement waaye nag loolee dafa néew loola yéen kaay gi di sud ko di cee xëy ci ay dossiers yu tàng-tàng yoo xam ne maanaam mooy xaar Macky Sall ngir nag mu daal di koy lijjante ak askanu Sénégal bi si njëkk bokk na si kàddu yi Moustapha Cissé Lo yëkkati wax ci train express régional ak luq njuur gi nga xamante ni ma nga sa waaye nag journal bi nee na train express régional ay milliards yi milliards yi milliards lañ sa dugal te ba léegi nii maanaam kenn mënu laa wax lii lay jëm ci wàllum jiw yi nga xamante ni Moustapha Cissé Lo wax na ne ay luq njur moo sa am te du qualité bu baax journal bi tamit wax na ci aide alimentaire loo xamante ni askanu Sénégal bëgg nañu Macky Sall indi ci ay leeral ndax liñ si nemmeeku liñ si wax bëri na ay luq njur ki léexóor ci lu jëm ci wàllum marché yi ni nga xam ne moom lañ ko doon joxe wàllum séddale gi moom maara day taali par parloo gu rëy moo fa am journal bi ne na mbir mi daal mën nañu ko jàppe sax ak échec total lajjite goo xam ne Mansour Faye ak ñi mu àndal lajj nañ ko ci mbir mi dafa daanu ba xalango yéen a kaay di ko di jëm ci wàllum Senelec ak SDE ak SAR ak Sonacos loolee lépp maanaam mal gouvernance daan nañ ko fay gis SDE bi nga xam ne jëlee nañ ko fi andi fi seen o ñu bari amoon ci yaakaar waaye nag seen yaakaar dafa tas journal bi nee na SAR bëri na ay luq njur ak contrat ak li Senelec bii nga xam ne ay milliards yi milliards la te ñoo ngi wax ne ay njubla nga gi giraawaal yi daf am scandale foncier yi nga xam ne am na ci réew mi loole lépp Macky Sall war na koo lijjanti yéen kay gi de la témoin xëy ci lu jëm ci wàllum tabaski nee na fora yi maanaam daral yi jamono ji xar yi bëri bëreegul te xar yi nga xam ne moo fi jot a ñëw ci réew mi maanaam cher na ba jéggi dayoo yéen a kaay gi de la turbine ñu xëy fekk fay Ibrahima Amidou Dem moom nag daan wax ne am na magistrat yoo xam ne yu jub lañ yu baax lañ yoo xamante ne dañuy def seen liggéey correctement waaye nag am na ay magistrat yoo xam ne dañuy def ay luqi njuura ki giraawaale ki tojaange te ñooñee maanaam dañu leen a war ndax justice bi dafa war tëddee njaaxaanaay Ibrahima Amidou a sénégalais yi ñoo si war a jël seeni matukaay moom juge ba woon daan nay wax ne élection locale yi jamono ji Macky Sall rek moo xam kañ la wax na ci lu jëm ci mbirum foncier gi nga xam ne ñoo ngi koy jaaba jonge ci diwaanu Thiès nee na ñi nga xam ne ñooy maire ñooy complice yi yéen kaay gii di réew mi ko di jee mu xëy di ñu xamal naan ñu Babacar Ngom bu Sedima ni ki démb gont na ci presse bi du indi ay leeral ci coow li dox digganteem moom ak waa Ndengler ci 300 hectares daan nay wax ne jamono ji moom moo nekk ci yoona yéen kaay gi du source a ñu xëy fekk fa waa ñoom nag nee nañu maanaam duñu deltu ginnaaw benn yoon Babacar ngoom ñëw na fa ay yoon yoon bëgg ñu jox ko suuf soosu waaye dañoo lànk kandaare bis sax nee nañu Babacar ngoom ñëw na fa wax leen ne leen dina leen fi andil courant dinaa leen defaral seen yoon wi dina leen fi andil ndox waaye nag askan wi nee nañu li ñu ko tontu woon mooy li nga wax lépp baax na neex na waaye nag du ñu ko def ndax suñ suuf si du ñu ko joxe benn yoon ñoom daal nee nañu dañoo am mbetteel jekk-jekk rek Babacar Ngom andi fa ay machine xale yi nga xam ne ñoo fa demoon sax maanaam dañu leen a dóor te li nga xam ne moo nekkoon repère maanaam luy wane ne seen suuf la loolee Babacar Ngom bu Sedima daf ko faa jëlee yéen a de laas mu ñu xamal lan ñu Moussa Baldé mi ñu dénk wàllu mbay mi jamono ji nag ma ngi violé loi bi ndax moo nekk président conseil départemental bu Kolda ba nekk ministre te loolee loi réew mi daf koy tere yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy ci décret honoraire bi nga xamante coow li jibu na fi fan yi yëpp ñu génn loolee nag taxoon na Abdoul ak ñi mu àndal demoon cour suprême waaye nag ni ki démb seen sàkkuteef dañu leen koo bañal Abdoul ca assemblée nationale stade yéen a kay xëy di ñu xamal naan ñu Premier League maanaam championnat bu Angleterre africain yi toj nañu ko ndax Sadio Mané moo nekk meilleur buteur Mahrez nekk meilleur passeur yéen a kay gii di sunu làmb ñu xëy fekk fa guy gi moom nag ma ngi dànkaafu rëg-rëg nee na bis bu combat bi taxawee ba ñu jàkkaarloo ñoom ñaar bu ñu jàppante guy gi nee na dina ko jàngal bëre